Assalamualaikum, les amis internautes ñu ngi leen di siyaar ku nek trop ak santam ah tay nak ñu si benen star ba nga xamantene xalé bi xew ci jamono la ki nga xamantene bu sañsee mu rafet bu danser mu neex muy bébé aji bébé aji leen seet ci tay wara a waxtaan ak mom bébé aji ñu ngi lay nuyu. nan day fay jazz. ah di la di la béggee bu baax nan sañse gi macha allah ni nga raf tay waaw la yëfu noobul la rek. deug la ak sëfu bu weex bi rek ni nga raf tent ko bu baax. ragaluma deug la <laughs> euh, bébé aji ñu xam ko xam ko ci danse. vraiment muy feccal Pape Diouf mais parfois ñu gis la ci programme ya nga xamante ne dangay ngay animé ba mu neex xanaa loolu pour lan la bëggal fan si la wala loolu lu koy waral jazz mooy man du ma jëgantu. Mhm. newul euh, day jékki-jékki dañu woo ma tey fii tey fii tey fii ma de ku ma sax dinaa la demal. Mhm. mais dem fu ma woowul daal laa dul man mais ku ma woo daal dinaa yëngal def ba neex daal. Mhm. waaw kon dafa am sa benn ay mbokk fecc ka dañuy dem fu leen yëgalul di wër di taxawaalu def mel ni non peut-être mais man mom dund ma loolu am na def man bokku ci gaam bobu wax dëgg yàlla. Uh-huh. man mom fuma def dañ ma wo ah bokko ci ñi dem ci yenn scène yi di beuf affaire yooyu pour nit ñi gis leen quoi. non non man bañ na ko sax ba dañ may xas sama bari wu hmm. lan mo waral loolu lan da nga da ngay bañ ko la manqué respect wala bok da nga gis que né artiste yi dafa am ñi nga xamantene respecté wuñ seen mbokku artiste hein ba ba dañ leen wara inviter rek ñu ñëw. non du loolu sax gis nga daf dañoo toll ci àdduna boo xamante ne genre dañ lay buñ la buñ la wooyee mhm. demal mais buñ la woowul loo fa dund rek yaa ko tooñ sa fa tooñ sa bopp parce mhm. que situation léegi fecc mi dafa dafa dafa doy waar mhm. dañuy lekkante artistes seen biir dañuy lekkante yeah hmm? dañuy lekkante tey jii mun nga dem si euh, kiwu nit comprend nga nga dem chaînam boo demee chaînam lim lay wan ak la may def ca chaîne ba sax du benn mun naa joué mun na laa yootal ba nga ñëw boo ñëwee dooy yëg ah, mooy yéen yi ngay gis ni xaaj bi dañuy def loolu mais am na ñu koy def mais du ñëpp nag wax dëgg yàlla yenn saa yi da ngay dem ci chaîne nit mu yaatal la nga dem joué ah bu teral la nga wàcc mais newul ñëpp la parce que fii ñu ñi nga xamante ni dañuy siis am nañu fa baax parce que ñëpp mënu ñëw boole soxor ci feccikat yi am nañu ci yoo xool bu rek a ah, kon seet kon du du woykat yi quoi fecckat yi nga xam ne ñoo nekk ci. woykat bi ñoom ñoo lay siis la muy woykat beeg. Ah. muy fecckat beeg muy videur bi. ah videur bi da lay téye parfois mais videur bi liggéeyam lay def nag. mais man dëgg yàlla ah. loolu mosuma ko dund. dëgg la yooyu nag laay éviter. parce que damaa xaw a sikk dëgg la euh, ginnaaw loolu ci lañ gis sa benn naataango bi nga xam ne yéen a bokk fi ngeen di liggéeyee muy sa frère di sa xarit muy Mokhoudia ñu jékki-jékki gis ko seen Wally Ballago Seck Euh, ñàkkul sax lu muy déggante ñoom mu jékki-jékki ñu gis ko mu màbb ci seen wàllu balaa ko sekk fecc fa teewul am vision pour dem foofu pour liggéey foofu noo gisee loolu. non Makhoudia man dafa dem fecc ji foofu rek euh, dafa am envie baali mais pour man fukki xelam ak juróom-ñaar mayu ko mu naan day dem. busin toog foofu noonu di liggéey parce que fee lañ ko xamee ci Pape Diouf mm-hmm. mais ñu gis ay moroom fecckatam ñu def loolu xanaa tey seen boobu du seen ba nga xamante ne euh, passe partout la ku nekk war na foon a jaar dem parce que tamit nit ki par comme tamit équipe la rek da ngay nekk Barça parfois nga nekk Real parfois nga nekk gisoo ko noonu quoi parce que war na fa mën a dem nekk fa. pour man. Mhm. ñay ñay ñay ñay ñooñu. du ah. moom. Mhm. benn parce que moom fii lañ ko xamee kon li ma waxal ci Pape Diouf lañ ko xamee. Mhm. yaa dégg ñay dem dem nañ. ñu ngi mais man pour man mom man sama xel bu gàtt xel fukki xelam ak juróom-ñaar mayu ko mu da fay dem togi di jouer parce que mom peut-être dama ma balé man loolu la ko jàppee wax deug yaa non lutax nga xalaat ne war xelam waru ko may mu dem foofu xanaa moomul boppam. parce que fé la xam. fé la xam. suñu kër la xam. seen kër la xam wa suñu kër la xam. est-ce que seen kër neex na ba tax na moom moo laaj ko. jël ko nga jël ko interview nga laaj ko nag suñu kër neex na hmm. suñu kër de neex a tax ma suqaleku nii hmm. sama yax ñëw waaw ok ñu gis beneen affaire bu am solo euh, mooy que comme ñun yàlla daf ñu dimbalee parfois dañuy buñ la invité dañuy bëgg yenn information yi pour jot ko pour nit ñi parce que ñu bëri dañuy laaj ci mbedd mi pour ñuy comprendre parce que parfois nit dina laaj dara ñu jàppee ko leneen fekk laajam dafa war a laaj loolu comprendre parce que public bi ñoo koy soxla ñi ñuy suivre euh, ñu gis Pape Diouf fan yi muy voyage yi dadam yëpp

fan yee bee paase mm-hmm. gis nga àdduna waroo yàkkamti sa yoon mm-hmm. gis nga sama dem bu mm-hmm. waree jot rek damay dem yàkkamti wu ma ko noonu ko gisee noonu laa gisee sama papa ji <laughs> Pape kenn du boom mm. ma waree dem ci kàttanu yàlla dinaa dem incha allah fan yi coow li bëri loolu ci fecckat yi ki nan may premier, ki moy may deux comprendre nga kat yi bari lol ba tax na gis ku ci melni ndey wanai ni muy woné bopam ndey ndjay banaya temps passé mo yoron bës mais dama gis né temps yi ndey ndjay ndey yërim mo tey bi tey dekk bi ci programme yu bari ba tax na gis nga limuy organiser ci ay anniversaire ak yeneen ak yeneen noy dund lol non yërim mom wax deug yalla koku mu na tey lu raw bës mhm. na xolam dafa rafet mhm. man duma né kenn yalla ngi deug suma yalla mhm. day yirim ku bax la mun na tey sax lu raw bës nak dund na ci art Mm-hmm. mais dama ne li nga xamante ne mënuñ kon mm-hmm. li ko sama raq ji waxee jajaa mm-hmm. ay waay ngir yàlla wuru soo bàyyi leen dañuy yàq fecc mi ci naka mënuñu mais doo nga xam que yéen boo xoolee tey boo demee waa boo demee bitim réew da ngay gis ay fecckat yi ñoom ñoo nekk ci kaw dañuy wàcc di jàngal xale ci suuf pour ñu mën mais du ne dañuy toog ci internet ne mënuñu ma wax la benn affaire gis nga doomu aadama bula yalla andé ci dara man dé ba ma commencé fetch bu ma ñëwee muy ñuma mak muy ñuma ñi nga xamante maguma leen ba ma dama damaa kookoonlu topp ci sen ginnaw mhm. pour man déggoo même man ba may ñëw dama mën pire mhm. mais il faut bo ñëwé ñi fi fekk mhm. jéem la top sen ginnaw nak lolou mo lay dimbali kat yi ban nañ bandi go xamante barki Serigne Touba mbake bo ñëwee topo ci seen ginnaaw dañuy fat fépp lan lan ngeen di ngeen xam te ñi xamuñu ko xanaa du fecc kese. duñ la may jàmm duñ la may salaam. ci naka. wante nañ bëri na histoire fecckat yi. mais lëmbal kenn moomu ko lëmbal yëngal seen digg la rek. moo tax ma ne ne la lëmbal gi kenn moomu ko. gis nga boo mënee. bu la neexee mën ngaa dem na say fer comme léegi xaadim moom ku ku ñëw mu ne ko jaay ma per mu jaay mm-hmm. ah, nga dem na say fer boo ñëwee nga taxaw fecc mais am na loo xamante ne pour man toroxal sa bopp la quoi. Mm-hmm. nañ waxante dëgg. Mm-hmm. boo mënee barke alxuraanu karim laa lay waata da ñëw ñi fi ñi fi nekk lëmbal da leen di raw loolu du lu du taxaw di la ko raconté nit ñi ñoo la koy wan ne la dangaa mën uh-huh. yaa ngi dégg uh-huh. mais ñëw taxaw munoo bëgg a sonal nit ñi fu nit ñi dugg nga dugg fa di leen sonal di leen énervé hmm, xam naa fecckat bu ma ci ni ñoom ñoo dàq lu ba mooy kan mooy Ndeya. mooy. bokk ak seen kii rek mooy mooy mooy waaw. Ah, lan lañ wax. moom ngeen nee ko nangul ñoo dàq fecc nañ ko nangul. mais waaw parfois damay gis ne ñoom dañuy tey seen digg di ko def na nga xamante ne sax ñoom ñii duñ ko def ñoom ay mag yi démb lañ léegi fi mu ne mënatum loolu ci gis sa gis-gis. Dieu merci. yow question bi ñëwaat ci pour nga waxaat ma dégg. ah ba lan la la ñëwal ñëwal ci question bi. Hmm? Hmm? dama ko jël man laaj la xam nga non xam nga déjà ñoom li ñuy wax dañ leen koy nangul mais genre gis nga caméra yi dafa neex rek mhm. muy tàq ñu jox la micro nga wax ne yaa dàq lëmba loolu am nga ci droit mais ay buñ ñu dajale woon ñun ñëpp ay buñ ñu dajale woon ñun ñëpp barki Serigne Touba ñu bari nañ teg seen fet toog. mais est-ce que pare ngeen pour ñu dajale ñun ñëpp def comme ni ñuy def mbër yi ngeen dox daje de euh, raconte bu am doole. ragaluma loolu. paré nga pour lool man bu doonoon légui sa paré na. loolu message bu am solo ñu koy lancer ñu yor wàllu culture ñu préparer lool parce que festival des lëmbal war naa ba du ma ko wax sax maa ko créé ba dañ ko sàcc mhm. ñun feccikat yi ñun feccikat yi parce que dañoo sonn ci ki ne maa mën maa mën léegi il faut ñu prouver prouver bi mooy xam nga lan la mhm. pour ñu xol kenn ku mën mu jeex ben yoon est-ce que yaa dégg légui nañ def ben festival teg teg coupe wala teg teg coupe coupe bi nañ ko teg ñu xol kat moo koy jël loolu dinaa ko créer incha allah festival des lëmbalkat yéen ñëpp pare leen bu leen sàcc sama concept nag maa ko créer fii laa ko waxee naa ko créer euh, ñu bari lool ci diggante Ndaté ak Mario Mbaye nga doon artist doon jigéen nekk ci millier bi naka ngay dund loolu bu nee nit ñi nga xam ne dañoo nekk ci millier bi parfois ñu ne dund ay saykat parfois ñu ne góor ñi dem dañoo yor jabar nooy gisee loolu. non xam nga dag laaj sama xalaat. Hmm. te dama lay tontu. waaw ku ci nekk da wax sa xalaat. Mhm. te suma tonto def na ne ken amul droit ne ma dab ma ne ma bébé aji ni nga tonto ndax ya genn def kon nit ñi buñ leen laaji dañuy wax seen xalaat da nga ragal wax de yaa ngi ngi nit ñi de di bab nit ñi non baabu ma de Paske mhm. ma de parce que suma ma damay bab nit ñi may ni duma duma ko man pour man ndaxte dafa joom mhm. sama xalaatu bop bu fekkon man la duma genn parce que genn damay wees sama bop fi ben jigen lañuy tek teg ci lu wax. Mhm. neena na dañ koo teg suuf tek ko xawma ay matraque xaw ma lan. dor ko dor yi wa mhm. mais lolu sa diggante sa borom keur la. bu fekke ben fan sax dund ngeen ko mu neex nañ waxante deug mhm. jarul genn parce que bo genné wéro ko gor ki da yow sa bop ngay wéx est ce que gisoo ko gor ki dafa sagan parce que yor jabar ba pare xamoo ni nga ko wara yoré ba pare mayo ko temps boy waxtane mom sax instant yang ci ay soirée té sey dafa am war lok sa jabar est ce que gor ki deful erreur. man ku góor ki mënuma koo blâmer benn wax dëgg yàlla mënuma blâmer ku góor ki ndax yéen benn version rek ngeen dégg sénégalais moom boo génnee def benn version jooy dañ lay gëm jigéen laa tamit peut-être ndaxte li mu dund moom moo ko xam mais fenn rek laa ko blâmer waru woon def sorti parce que yàlla rek moo xam suba parce que lu xas ba dugg ci internet parce que juboo mun na am fu nekk de sóoraale loolu loo mer mer mer mer àndal ak sa xel ba dal loolu laa koy conseil ba pare man ku góortuma wax dara ndax yéen benn version ngeen ngeen ngeen dégloo gum leen ba déglu beneen version en tant que sa mbokku jigéen daj lu métti loolu ci sëy génn ci xolam wax li mu exprimer moo respect ñëpp dégg ko ah, ñenn ñi bi ñu ko euh, déggee métti leen trop yow nga ñëw waxee ni nga waxee yow kii nu tëdd si jazz fii barke ñu ko gën a sonn ci sëy man man gis naa leen Hmm. ndaxte ñu ko gën a sonn ci sëy man gis naa leen te teewul ba léegi ñu ngi toog. waaw ah, mais yooyu du say sëyu léegi nit ñi dañoo. développé nekk ci beneen. du sëyu démb fay muñ ñu métti yooyu dalatul yooyu quoi. non non waxuma du sëy quoi mais mais pour man man man waroon na garder secret mu nekk moom ak kim ko sekkaloon man loolu man su fekkoon man la noonu laay doxee même su ma xamee ne danga may teg mitit mu leer na ma lii mënatuma ko supporter parce que xol mooy nit quoi ku nekk foo mën a yam mu leer na ma fii ma fi continuer dama lay naan carrément ah nañ nañ nañ ñaanalante bu ñu ñaanalante du ma génn ci réseaux sociaux du ma wax du ma def dara damay xalaat ëllëg parce que tey jii Euh, benn benn benn góor mun na ko gis fee bu ko takk dina ragal parce que day naan kii même su ma ko takkee su ma su ma ko defee cos ñi lay génnee waxaatee. waaw ah, mais est ce que fi ngay xalaate góor ñi dañuy xalaate parce que parfois góor ñi dañuy xool taaru booy bi ak tamit bëgg ko te yàlla tax non ndaxte xale la li mu amul solo quoi ndaxte la mun na am lu nekk ci àdduna. Mhm. mais fenn rek fenn rek fenn rek man moo ma naqari quoi. Mhm. waru woon génn def sorti léegi loo gis ne Mario Mbaye bi maman bi loolu la war a def. neexal jabara Ya. Nah. kon hmm. ku ñëpp wax nañ moom mu jappo dem la bëgg neexal pour lan sey bu tass nga la neexal na lay neexal non non non non xam nga man dan la xalaat parce que jigéen moy mère di genn di wax lu ko sax mais ba légui déggoo leen ku góor ki genn parce que dafa bëgg jabaram ba légui ku góor ki gisoo leen ko em suma défé ni suma tiktok da ngay gis muy def si nag taf ci photo jabar mais ya, est ce que amna lu mu wax parce que jigéen tamit boko téggé yeen yéen métit est ce que jar na ngay gennat di am loy wax loy wax non non non non pour man peut être peut être sortie bi daf ko choquer eh, rek peut-être xaaru ko woon ci ci ci xale bu jigéen parce que ñoom ñaar dañuy yàgg. est-ce que bu bu bu génnoon wax ba jëlaat jabaram est-ce que sëy dina fa amati parce que man pour man mbëggeel ko fa quoi. àdduna lu nekk lu nekk possible dara dara jafewu fi dara jafewu fi barki yàlla tey jii bu yàlla dogaloon di seen diggante jeexagul nii la nii la waroon a demee lii dañ ko ci woon a dund te bu ñu àndaatee dañuy àndaat. bu mhm. boobaa kan mooy dese gàcce bi. Mhm. dama lay laajte bu ñu àndaatee bi. Ah, doyna war na waar gannaaw bi ñu ci loolu ñu am benen affaire ba nga xamante ne fan mu ngi def buzz ci réseaux sociaux yi Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.